gëm leen dina gën a baax ak koo gi dina neex ñu dellu nuyu leen di wax ni ni ko ya, eh, monsieur le questeur lamin Thiam waxee di monsieur le maire de maire it Koungheul dafa am tey loo xam ne yàlla dafa doxal fii la amee ndax Walou ak Yewi du ñaari coalition ci élection yi ben coalition la ci montage bo xamné bu nit musula xalat la wala bu nit musula def la fi Sénégal waye bo ba légui ñi ngi dawal ku nekk di door campagne am dajé guñu won ba yalla def tay fi Koungheul la ñu dajee kon dañuy japp ni fii Koungheul la Macky Sall perte assemblée nationale te loolu l'histoire retiendra mbokki Koungheul tey man may tête de liste de fait bo xam bu coalition Yewwi Askan Wi Lamine Thiam mii jàpp ma ni moy tête de liste su ma ko xoolee gisuma ko moom waaye président Abdoulaye Wade lay gis ci jëmmam nga xamné moy mooy tête de liste coalition walu Sénégal dama leen wax saaf ne leen kenn ku nekk ci ñun yeg yeg bi mu am ci tolluwaay réew mi ak danger yi nga xam mi ngi reub Sénégal ci jamono ji ñu toll motax kenn ku nekk ci ñun am lo bayyi ñu daal dajale suñu doole parce que dafa am lo xam ay doole ñu boole moko mëna jëlé fi lolo andi intercoalition Yewwi Wallu kon intercoalition boobu képp koo xam ne militant wu wàllu nga militant wu benn ci parti yi bokk ci wàllu nga xamal ni tey militant wu yeewi nga képp koo xam ne militant wu benn ci parti yi yeewi nga xamal ni tey militant wu wàllu nga dama ko wax bi ñu jaaree mbir gi lan ñëwaat wax ko bi ñu jaaree Malem Odar waxaat ko def naa ñaar yooyu la ñu jaaragum ci li nga xam ne wàllu moo ko porté te noonu lañ koy waxee fépp fu ñuy jaar ba egg noonu lañ koy defee suñu duggee Mbàkke bu soobee yàlla dinañ ko def Pikin dinañ ko def fépp foo xam ne wàllu moo ko fa jiite. dama ne ci bërëb yooyu képp koo xam ne militant wu Yewwi Askan Wi bàyyi fa bulletin wàllu li xam ne. nataalu président Abdoulaye moo fa nekk mooy tête ba nga bàyyi ko fa dem jël mini bulletin wu Yewwi voté dafa mel ni war nga Yewwi foo xam ne Wallu moo ko jiite ci suñu waxtaan gi ñu waxtaan ba ne fii Walloo fi war a jiite Yewwi topp ci ndax fu am ñaari député rek su fa Wallu jiitee ñaareel député bi suñu député la su fa Yewwi jiitee ñaareel député bi député wàllu la kon def ci ak sotti ci la waaye ku romb bulletin yi wàllu ci ci bërëb boo xam ne wàllu lañ fa jiital gëm nga dem jël bulletin yeew yi dugal ko fa dafa mel ni war nga yeew yi waaye noonu la demee ci ku képp koo xam ne nee nañu bërëb bii yeew yi lañ fa jiital député wàllu dafa dugg ci liste yeew yi nga bàyyi fa bulletin yeew yi dem jël bulletin wàllu dafa mel ni war nga wàllu kon militants yi ak sympathisants yi lañ leen di ñaan mooy ngeen respecter scrupuleusement le mot d'ordre parce que loolu rek moo ñu mën a jox ndam gi ñu bëgg ci Macky Sall le 31 loolu rek moo ñu ko mën a jox bu ngeen ko defee Yewwi dina ci génn renforcé wala génn ci renforcé mais ñoom ñaar bu ñu dajalee kenn ku nekk li nga am.